gërëm sous-préfet ci taxuwaay bu mu taxaw ba nu ñëwee ba léegi ci commune Patte d'Oie ak conseil rôle conseil bu mu joué gërëm bu baax a baax service yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi moo xam école yi la moo xam euh, bërëbu fajukaay yi la moo xam leneen ak leneen euh, di tatagal nag sama jigéen ji di Adja Maimouna Gueye di ko ñaanal yàlla xam naa ni maa ngi koy tooñ léegi ci bureau bi ma ne ko ndax yaa ngi def yoga ma ne ko euh, commune commune gérer ko du lenn loolu gérer ay fitna ak ay coono ndax bu taw amee bien que c'est pas une yow lañ ci soxla bu leneen xewee ci dëkk bi itam yow lañ ci yaakaar mais jàpp naa ni incha allahu rabbi liggéey boobu yàlla dina la may mat ba nga mën ko def ci askan bi en tout cas tu peux bien compter sur moi ndax ci commune bi ñu ñu dëkk.

dama bëggoon a am lépp loo xam ni war naa koo am comme dossier étudier ko toute la liasse euh, administrative et financière mais amuñu ko donc li nga xamante ni moom la ñu nar mooy jël ko après saytu ko ak équipe bi ma bi may àndal di liggéey xool ba nga xamante ni lépp luñ ci soxlawaat xëy nañu woo ko moom mu la wala sinon le secrétaire municipal kii la bu ñu gisee lu leer ñu doog a xam après nan la ñuy def xëy na loolu muy wax lu mu anticiper la parce que man kayit yi ñu ma wan euh, lu tolloog euh, téeméeri million nekkagul woon ci ci compte yi donc loolu xam naa ni buñ ko harmoniser rek danañu am lu leer lu ñuy teg ci loxo askan tàllal loxo sans distinction loolu wax naa ko te euh, mën naa ko delluwaat baamtu ko li may ñaan moom tàllalu ma loxo yam ci damay ñaan ku Padois soxal ku bëgg Padois Padois fal la ba nga nekk conseiller bul fàtte ni Padois moo la fal bu ma koy wax c'était dans le sens propre ah tagal ci mairie bi fuddan ci biir mairie bi mais dafay am lu muy changer ci mairie bi li muy changer ci mairie bi nak, dañuy ñaan Yalla mu don ci valeur dañuy ñaan Yalla mu don ci cadre de vie parce que bëgg nañu changer xar kanamu mairie bi wax na ci ak euh, monsieur le maire légui ni y des zones yoo xamante ne nii faaw ñu am nuñ ko laalaatee xam nuñ xool nuñ koy defaree ba ku xool mairie par d'Oie kat xam ne fii mooy mairie Patte d'Oie te jigéen a ko yore waaye loolu tamit euh, liñ ci liñ ciy jublu mooy wane rek ni jigéen magasin wu yàlla la comme je disais sànq yàlla da ko yan loo xam ne moom dong ko antan ndax jigéen mooy nekk ci kër mooy nekk ci bureau mooy nekk ci euh, euh, ci ci liggéeyam ñu wëlbati ko dénk ko mairie mu téye lépp ci loxoom te dara du ko jaaxal nag c'est une parce que mooy li ma doon wax euh, jàpp nañu ba jigéen ñi tey ji doon nañu 21 femmes yoo xamante ni On est nekk maire ak euh, président de conseil départemental. loolu nag dafa am ñun mission buñ ci gis parce que étoile bu tàkk la jigéen boo ko dénkee lu mu mën di di nga gis différence loolu on a que xaar ci jigéen ñi nga xam ne Dink nañ donc y aura à la kulli un grand changement dans dans dans la gestion de nos de nos collectivités.